المولد الذي كان لدي سرور بيومه والضحى ليلة المولد الذي كان لدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبائي في الله إخوتي في الله نحييكم بأحسن تهية وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي سانتا ديالا بنن يون دنيو دنج ديكو سانت تي خيوال ييغا خامن موغ نيكوي خيوالال ساسو نيك تي بن گنو تي راي خيوال گيغا خامي مو ني في داجالا تاي ديكو سانت ci boole gi mu ñu boole ci taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu waaye di ko santaati ci bunt bi nga xam ne ci la ñu boole ci taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim te mooy sëriñ bi toog di Cheikh Abdou Aziz Ndiaye di caat ci bay Cheikh Ndaw di taw ci Cheikh Ibrahim Mahmoud Niass yëpp ay may la yu ñu yàlla may mu doy ci ñu jaamu ko di ko sant saa su nekk ndax yàlla moom moo wax ne la in zakartum la azidannakum bu ngeen sante rek ma dolli la kon ñun njabootu Sëñ Abdou Aziz Ndiaye yàlla may ñu te yëg nañu may nañu ndax may nañu baay radiyallahu anhu te ku yàlla may baay rek deselatul la dara kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax ci turu taalibe yi maa ci gën a tuuti gën ci xeebu ñu yëkkati micro bi jox ma xaw ma sax lan laa war a wax waaye mbooleem ku yàlla la ci sa loxo ñu ngi lay sant di la gërëm rawatina ñun ñi nga xamante ni ñoo sant ndaw yàlla daram nekkul hasard wax nañ ne mooy caatu baay seex ndaw waaye li ma xam ci ay taalibe yoo xam ne ndaw lañ sant te yeggee ci yàlla ci buntum bari na lool kenn laa ci man mii di wax am naa ci ay mag yu ma bokkal ndey walla ma bokk ak ñoom baay am naa ci ay jarbaat yu ma mënul lim kon yàlla fay na yàlla na yàlla gën a yaatal wallaahi bu ñu mënoon wax lu ëpp cant dinañ ko wax waaye sant mënul paase sant kër gi ñu ñëw tey doom laa ci kër gi bu wér nag su ma waxoon fu ma jógee rek ñoom dinañ xam ne man doom laa ci kër gi ndax ku jógee sàngil ñëw fii boo ne doom nga ci kër gi kenn du ko weddi samay mag jaar nañ ci kër gi kon suma yàlla booleek sëriñ bi muy Cheikh Abdou ma ñëw mu ne ma bàyyi seex ndaw mooy mooy may caatam damay gën a sant yàlla ndax su may dugg fii sama xol day sedd ñëw naa fi lu jiitu bés yi nga xamante ni moom laa fi ñëwee ci buntu Mawlana Cheikh Ibrahim muy lu yàgg lool depuis quatre vingt yàlla dogal na may ñëw ci kër gi di fi seet sama mag kon damay sant yàlla bu baax bi ma yàlla boolee ci njabootu Cheikh Abdou Aziz Ba Ibrahim ñu ngi ànd ak suñu sëriñ di ziyaara si tamit suñu sëriñ ndax sëriñam suñu sëriñ la képp koo xamante ni sëriñu Seex Abdou Aziz la suñu sëriñ la man damay wax ne su ma xasee dugg Medina su ma ko gisee rek gis naa bàyyi wutiwuma feneen leneen moom xam na loolu su ma ko gisee rek pare naa ci li ma doon wax ak baay wala li ma doon def ak baay loolu la ñu jàngal loolu la ñu yare jëmm ji benn la bànqaasi rek yoo wutee foo langaam rek da ngay dem jërëjëfee Baye Niass jërëjëfe Baye Niass jërëjëfee Baye Niass waaye jërëjëfe Baye Cheikh Ndaw jërëjëfe Baye Cheikh Ndaw jërëjëfee Cheikh Ibrahim Mahmoud Niass jërëjëfee Baye Tuuti Niass waaye jërëjëfee Baye Abdou Aziz Ndiaye jërëjëfee Baye Abdou Aziz Ndiaye man daf ma gën a def nit tuuti laa doonoon ci nit waaye bi ma yàlla booleeg moom yóbbu na ma foo xam ne dund naa lu yàgg te yegguma fa kon loolu rekk doy na may sant bër bu set te ci loolu laa nekk nag ñu ngi sant mbooloo mi yëpp di gërëm ñëpp nag fu waay mën a jóge ñëw teew ci lii ñun nga fi teewal ak koo mën a doon ak foo mën a jóge gis nañ ñëpp sëriñ bi sant na ñëpp gërëm na ñépp buñ noon wax lu paas loolu dinañ ko wax ay sëriñ bi ñu ngi gàttal foofu wax ji lu ci jub ci yàlla la jóge bu dëngee it nag ki doon wax moo matagul rek waaye bëggoon naa mu gën a rafet ndax daf noon ma waxal lu rafet kon li ma wax bu dëngee rek xam leen ne ci man la waaye moom li ma waxoon du lool su jubee it nag ci ndimbalu yàlla yal na yàlla dimbali ñu jeetaay bii yal nañ toog ba koy génn ci mbedd bi te am nañ ci yaakaar bu baax te du yàgg ndax ci saal ba lañ ko doon defee tey ñu indi ko fii indiwaat ko fi am naa yaakaar du yàgg ñu génn ko ci biti yal na ko yàlla defal yal na ko ñun ñëpp yal nañ ko fekkee li ñu mën ren bu déwénee yal nañ man junneem sëriñ bi warlul ñu ko bëgg nañ bu ñu teewee fii ñu jox la ba nga gërëm wallaay lazim jox la ba nga gërëm nga jox sa sëriñ ba mu gërëm loolu rek mooy suñu yéene yàlla ñu ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke cheikhu tidiane radiallahu anhu ci barke maulana cheikh ibrahim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëriñ bi nee na alhamdulilahi ñu sant yàlla bu baax alhamdulilahi rabbil alamin nee na alamin wax mu ne nañ wax ne jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Cheikh Ndaw nee na jërëjëfee Baye Cheikh Ndaw jërëjëfee Cheikh Baye Tuuti nee na alhamdulilahi alamin nee na mu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di ndokkel ñëpp di ñaanal ñëpp tawféex si zaaxir ak si baatin mooy di si njëkkee sëriñam Baay Cheikh Ndaw si turu doomam Mawlaana Cheikh Ibrahima Ndaw ziyaara. di nuyu di ziyaara. Alaaji Abdoulahi Ndaw. ànd ak ne. moom moo joxe ndigal. moom moo joxe ndigal. amul droit ziyaara. amul droit ziyaara. lu may Cheikh Ibrahim. Ndaw. moom mooy ziyaara Alaaji Abdoulahi. moom mooy ñaan mu ngi lay xamal ne. mu ngi ànd ak magam. xalifaam. baayam Cheikh Mouhamad Kan Njaay mu nga ànd ak yaayam it magam du suñu xalifatu Seyda Ndey Awa Njaay ñu gën koo xam si Salaatu Njaay nee na mu nga na le toog ñoom awaa ngi ne aadamaa ngi na le mu ne doomu Baye Mbay Njaay yëpp teew nañu ñëw nañu nee na lii nag sant yàlla la nee ay soxnaam ñew nañ ay doomam ñew nañ nee mbokam ci yalla yi ñep ñew nañ bu mayton ngant ñen ñi nee bu mayaloon ngant ñen ñi dinañ genn buntu kër gi mu ne loolu mu la koy seedeel nee na ziyaara bii nag nee na benn mbir la lay ñaan si barke mbëggeelu Baye Cheikh Ndaw si Baye Niass nee na képp ku fi teew bu kenn yàqu buñ yàqu si zahir buñ yàqu si baatin buñ dellu ginnaaw seen xéewal na sax na mat na ñoŋ te yàlla na ko yàlla yokk ne si barke ñaanu baay googu ba muy wax ne عدل إلهي نعمتي نعمتي وزدها وزدها وتم منها وتم منها أبدا أبدا سنها wasun haa yow yàlla saxalal sama xéewal saxalal sama xéewal boo ko saxalee boo ko saxalee nga di ko yokk nga di ko yokk boo ko yokkee boo ko yokkee nga matal ko nga matal ko boo ko matalee boo ko matalee nga aaral ma ko ñaan barke ñaan mu ne barke ñaan googu maa ngi sukk samay bëti oomi xol nee na mu ngi sukk bëti oomi xolam nee na boo xamoon li ko gënal mu ne dañ koy may ndigal mu toog si suuf wuute ak seen ndigal mu ne waaye ñemewul wuute ak seen ndigal ku mu ne ku jóog ndigal dajeeg mbugal dajeeg mbugal ku juyoo ak ndigal ku juyoo ak ndigal mu ne moo tax ñemewul wuute seen ndigal mu ne waaye du teggin ngeen toog ci kaw ngeen toog ci kaw ñu gis la ñu gis ko mu toog ci kaw ñu ne taalibe buy ziyaar ji sëriñam moo toog nele ci kaw serignam tok ci kaw neena na xel munu koy nangu way neena jamono dafa dof xel yi dañu ruy buñ gisé mu tok ci kaw rek dinañ xam luñ wax mu ne waaye ndigal ko tek ci kaw mu ne moo loolu moo tax ndigal lolu neena serign bi ziaré bi bëgg doomu bax am am tekki am ngir mande yalla mu ne mo wara ziyare bi neena na wër na ko ne bay Cheikh Ndaw lak na ngir mande yalla neena lu wër la neena ku xam wirasatu moy ndono moy mu ne na yoni tarikh nañ yónnee suwaar nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moom la ñu yàlla royloo nee na royloo ñu kenn nee na laxat kaana lakum fii rasulillahi uswatun xasana nee na loolu la alxuraan wax nee na jafal naa leen royukaay bu rafet ci kan mu ne ci sama ndaw lii mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent bi nag nee na ñu ko donn dafay wax benn saxaabi nee benn saxaabi moom rek mu ne moom rek Seydou moom rek. na moom rek. la alxuraan tudd. la alxuraan tudd. si saxaaba yi. si saxaaba yi. ginnaaw Abubakar ba mu ne ba mu ko ba mu ko junjee. ginnaaw ko junjee. waaye tuddaatul keneen. mu ne waaye tuddaatul keneen. Seydou moomu. moomu. nee na borom maqaama bu kawe la woon si jamono yonent a sallallahu alayhi wasallam moom rek nee na moom rek moom musa tekki fase soxnaam moom musa fase soxnaam mu ne yonent a sallallahu alayhi wasallam takk ko mu ne sahaaba yëpp nag ñu ànd ak baay ñëpp tamit. mu ne ñu ànd ak baay ñëpp tamit. kenn rek. mu ne kenn rek. moo si bàyyi soxnaam. moo si bàyyi soxnaam. baay takk ko. baay takk ko. muy alaaji Cheikh Ndaw. maqaama boo xam ne. mu ne di maqaama boo xam ne. ku ku borom xeli dof yi. mu ne borom xeli dof yi. duñ ko dégg. duñ ko dégg. ak rëy. ak Baye Cheikh Ndaw nee na Baye Cheikh Ndaw ba def mu baayan ba ñuy def mu baayan mooy jaayante bi ñuy def mooy jaayante bi ñuy def ba daa fekk Baye am fu mu ko yebal mu ne boobu daa fekk Baye am fu mu ko yebal ba ñuy dem bay jaayante mu ne ba ñuy dem bay jaayante sëriñ Aliou Cissé radiyallahu anhu mu ne sëriñ Aliou Cissé radiyallahu anhu ne Alaaji Cheikh Ndaw nekku fi de nee na Alaaji Cheikh Ndaw nekku fi na Cheikh Ndaw min naa mu ne bàyyi na Cheikh Ndaw min naa min ahlil bayti Cheikh Ndaw si ñun la bokk Cheikh Ndaw si ñun la bokk si waa néeg bi la bokk si waa néeg bi muy góor gu doy waar mu ne muy góor waar Ndaw nee na Baye Cheikh Ndaw garmi la garmi si juddu si jikko si xam si lépp àdduna ak mu ne bu jaayee àdduna ak alaaxira lépp ngir topp Baye Niass ñëw topp Baye Niass mu ne kon war nañoo xam kan mooy Baye mu ne jamono ji ban doomu aadama. ban doomu aadama. la ëppul ay millions yi millions yi millions yi topp ko. ay millions yi millions yi millions ko. ci doomu aadama. ci doomu aadama. mu ne nañ yónni histoire. kan la ci. kan la si. na bàyyi rek la. yàlla fu ko neex lay def nee na yàlla fu ko neex lay def mbootam. nee na Baye Cheikh Ndaw tamit. ba mu ñëwee ci Baye. ba mu ñëwee si mu ne mu marqué empreinte am. ba ñëpp dégg ba ñëpp dégg ko. bokk na si Sharaf. nee na bokk na si Sharaf. moo njëkk na moo njëkk a tàllal Baye Lamp mu ne Medina Baye gi leer nañ nee na ak yeneen ak yeneen nee na sëriñ bi bu jëlee parole mu ne dinañu xamal kan mooy Baye Cheikh Ndaw mu ne moo tax moom du ñemee dugg foofu mu ne moo tax yéen ñu ziyaar ji Baye Cheikh Ndaw ànd ak moom nee na mu ngi leen di ndokkeel maa ngi leen di ñee mu ne mu ngi leen di séntu fu kawe nee na hadiya bi ñu joxe mu ne du 110 la nee na ban tur yàlla taxawee nee na hadiya bi ban tur yàlla taxawee nee na lu nekk lu nekk day wax. ba Cheikh Abdou Konté nañ ko compté. nee na ba Cheikh Abdou Konté nañ ko compté. dama ne ko jaru ko. mooy da ko ne jaru ko. waaye mu insisté. mu ne waaye mu insisté. ma bàyyi ko mu dem. mu ne mu bàyyi ko mu dem. daf doon wax. mu ne waaye da doon wax. 110 ban tur yàlla la taxawee. nee na 110 ban tur yàlla taxawee. xam ngeen ko. nee na ndax xam ngeen ko. moo taxawee Aliou. nee na moo taxawee Aliou. ak ak kowe ziyaara bi mu ne kon ziyaara bi ak kowe la ñëpp di ngeen am aliyu mu ne ñëpp dinañ am aliyu nee na sëriñ bi ñu ngi naan nga garantil ñu loolu mu ne nga garantil ñu loolu wax ma mbëggeel Baye Cheikh Ndaw de mu ne waxul mbëggeelu Baye Cheikh Ndaw de waaye yow sa mbëggeel ci Baye Niass mu ne waaye yow sa mbëggeel si Baye Niass lamp yooyu ñu doon wax ne mu ne làmp yooyu ñu doon wax ne. doomu Baye Cheikh Ndaw moo ko njëkk a taalal Mawlana Cheikh Ibrahim. mu ne doomu Baye Cheikh Ndaw Baye Cheikh Ndaw moo ko njëkk a taalal Ibrahim. ba Medina Baye di leer poto yooyu ñu samp si tribune ba. nee na ba Medina Baye di leer poto ñu doon samp si tribune ba. jëmm ji. nee na jëmm ji. moo samp poto yooyu. nee moo samp poto yooyu. boobu moo nekk directeur Sénélec. mu ne national lépp. mu lu rëy Medina. mu ne mu liggéey lu rëy Medina. doo dégg mu waxtaanee ko. mu ne waaye doo dégg mu waxtaanee ko mukk. macha allah. nee na macha allah. bu ñëwee toog. mu ne kon bu ñëwee toog. mu ne te Maolana Cheikh Ibrahim la ko. Baye Cheikh Ndaw tuddee mu ne kon ñun Maulana Cheikh Ibrahim lañ ziare si nee na si buntu Baye Cheikh Ndaw mu ne waaye Baye moo ñu recevoir mu ne lum ñaan yàlla yàlla nangu ko mu ne hadiya bi ñu joxe nii. ñii joxuñ leen dara de. mu ne ñii joxuñ leen dara de. mu ne gis nga adee ba mu ñëwee. mu ne sama yaay ndey kumba la jël jox ko ko. mu ne moom mu nekk jigéen joo xam ne. mu ne macha allah yal na bu ko cat dugg amiin yaa rabbi mu ne moog rakkam mu ne Seyda Aïcha mu ne ñu ngi dimbale doomu aadama yi dimbale goo xam ne mu ne kazalika yéen a ngi koy dégg mu ne Seyda Bintu Ndaw mu ne ñëpp dégg ndi ndimbalam si biir Medina Baye si biir Kaolack mu ne nag ki ko liggéey. mu ne Baye Cheikh Ndaw ko liggéey mu ne coow li coow li mu ne mbëggeelu Baye Cheikh Ndaw la mu ne lu moo ko waral nee na sëriñ bi mbooloo mii mu ne daa bëgg ñu yëg yokk si zahir ak si baatin nee na yàlla na bu kenn rëccu si ñoom liñ ñëwee si ziyaare bi nee na ku si rëccu yàlla na rëccu lum si bokkutee yàlla wala yàlla na rëccu lum yéex a amee mu ne ñi ma àndal nag bëri nañ mu ne buy lim mu ne dina fàtte mu ne te dina tëb ko xam ne warut koo tëb mu ne waaye ñu baal ko mu ne kum tuddul rek mu ne wallaahi tudd na la mu ne te yàlla xam la mu ëpp njëriñ mu ne Cheikh Mansour a ngi nii mu ne moo namp jox ko mu namp mu ne mooy magam ju ko yërëm mu ne waaye bu Cheikh Kara teewee moom dafay suulu si biiram mu ne mu nga ànd ak mu ne maître am moom maître Dame Seck mu ne moo ko formé mu ne depuis ceinture blanche mu ne ba mu takk quatrième danam nee na lu mu am si aar mu ne moom la mu ne lu mu xamit moom la muy mag joo xam ne mu ne ku ko dimbale la mu ne sëriñ bi mu ne ngeen baal ko mu nettali benn anecdote mu ne moo sol lu bële lii mu ne senegal ñu bëri xam nañ ko mu ne maître Ablaye Wade xam na ko mu ne mboolem gouvernement bi ñu bëri xam nañ ko ngir xereñam mu ne taekwondo la woon mu ne te Sénégal buñ demee ba ñuy naw taekwondo si àdduna bi mu ne lépp ci loxoom la jaar mu ne waaye muy dox mu ne mu gis ni àdduna di demee mu ne mu gis na Sénégal a ngi nelaw ba léegi mu ne si loolu nag mu ne la dem Amérique gis ne ñëpp ngi dundal seen mbiru bopp mu ne di ngir yëkkati seen réew ngir yëkkati seen culture réew mu ne lan moo tax loolu waru koo def moom mu ne mu dem Canada gis lu mel noonu mu ne xaaral ma dellu Sénégal mu ne xam-xam bi ma yore nii ma jokk sama waa réew ba mu ñëwee créé aar boo xam ne ña nga xam ne fa lañ jëlee aar si ñoom euh, xam-xam boobu yoruñ ko mu ne ngi ngeen ñaanal ko yàlla yàlla sàmm ko aar ko barkel ko sutural ko mu ne ba lépp lu mu bëgg yàlla defal ko ko si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñu ngi ndokkeel di tatagal suñu mag Cheikh Ibrahima Diop mu ne muy kenn tamit si ñu jaar si kër gi di mbokku góor gi tarbiya it si moom mu ne amee ijaaza si moom it mu ne ñu ñëpp si Baay Cheikh Ndaw lañ amee ijaaza mu ne ñu ngi koy ndokkeel di ko tatagal di gàttal suñu wax yéen ñaa yéen ñi des toog leen noonu wàcce leen foofu ngeen toog yéen ñëpp mën nañu ak tiim bi wàcce leen noonu mune ñu ngi tej suñu wax. di wax ne. mune ñi ne. ñii bu ñu leen xam nga nu mel. xam ku amut ñew di yalwaan borom milliard. mune ko amut ñew di yalwaan borom milliard. mune lool nuñ koy déggé du du lañu xaar ñun. xaar xaar xam nga ban la. xam ak sel dong nee na Baye Cheikh Ndaw loolu rek moo nekkoon mbiram nee na alquran dafa ne allah lillaahu diinal xaalis mu ne si yàlla mu ne lim soxla mooy diina gu sell kon mu ne kon loolu lañ soxla ñëw lañ ziyaara si la ziyaara Baye Cheikh Ndaw si yow ñu ngi ñaan yàlla ziyaara bi nga nangul ñu ko nee magam na Cheikh mohammed kan, kan? buguna na mu nuyonte ak yeen ñu jox la kaddu gi mën nga waxtaan bo boo ñaanal ñu yalla ñu dem ba jëmmi jamono warahmatullah assalamu alaykum sëriñ bi assalamu alaykum mo ngi leen nuyu di leen ziyara di leen tatagal si bu mag bi mu ngi wax na alhamdullilah ya rabbil alamin neena li tax ñu wara sante yalla ya yàlla mu ne suñu way juri neena ndax te biñ ñu juré fañ ñu wara juré oh, yar ñu fañ ñu wara yaré mu ne lu reccu ñu luñ doon joggé si ñoom nee ndax te tey alaaji Cheikh Ndaw bi nga xam ne nii duñ ko tuddee tey lu dul poste de transformation électrique nee na parce que centrale ba nee mu nga fa buftu ba di walee mu ne mu branché ay poste

mu ne mu ne ndaxte asis mooy caatu ñaari kër yi nee na mooy caatu kër Babacar Ndiaye mooy caatu kër Alaaji Cheikh Ndaw nee na Alaaji Ndaw mii mooy taawu kër gi mu ne moom mii mooy taawu kër gi ndey kumba mii mooy taaw bu jigéen fii nee na Salaatou male moy taw fi mu ne ñun ñent ñoo ñëpp yalla dajje dimbale ñu dajje fi mu ne kon dañ nan alhamdullilah rabbil alamin nee sank sànq mu ngi tok ak nday kumba ci bir neeg bi mu ne ko dañuy sant yalla ñaanal suñu way jur yi yal na la yalla xare aljana min ya rabbi te lepp luñ doon def tey rëccu wuñ ko nee na tey fa ñu ne bëgg nañ mu ne si Maolana Cheikh tey ku ko yeewoon mu ne ana alaaji Cheikh Ndaw mu ne comme ni ko Aziz waxee nii ne lamp yi mu njëkk a taal si gàmmu Medina Baye moo ko njëkk def Momar Ndaw mu ne keroog ba nga xam ne nii Momar Ndaw Ascosen mu ngi def benn marche mu ngi def benn marche mu ne ñu aaye ko marche ba mu ne ñu jàppee Momar Xaar Yàlla mu ne policier yi jàpp ko mu ne deret génn na keroog mu ne biñ ko jàppee policier bi khatarayu ñu ne ko ki nga jàpp fii tey boo xamoon fi mu bokk boo xamoon kuy baayam nga xamne fit bi nga xamne ne mo nga da am dañ ko ko brancher mo ne te kéro ba bayam bañ ne Sénégal bu kenn julli juma ci Sénégal mu ne Medina Baye rek moo julli ñoo ñu ànd ak Baye Cheikh Ndaw mu génne pistolet ci biir jumaa ji ne ku daw dinaa la ko dóor mu ne keroog la Baye lentalu Senghor ne ko bu mu amati nee na ko defoon jaroole googu nee na mooy góor gi Alaaji Cheikh Ndaw mu ne kon lim fi yal len yalla yàlla barkeel amin ya rabbi yal na yàlla suuxat njaboot gi ya rabbi ne li ñuy def yal nañ koy def ba suñu seut di ko def dañ koy amin mu ngi neena mu ngi ñaanal ñep di ñaanal ñep nak ne di ñaanal rakam bu jigen di nday astu Ndaw mu neena mom moy ministre de la nourriture et l'organisation mu ne loolu moom am na. ko yàlla barkeel. ne yal na ko yàlla barkeel. ne asalaamaaleykum wa rahmatullah. suñu papa nee na asalaamaaleykum wa rahmatullah. nee mu ngi nuyu ku nekk ci turam ak jëmmam. asiyama sëriñ bi fi teew tey. mu ne rawatina sëriñ bi fi teew tey. toppa ci ay doom yi mu ne ñu teg ci doom yi nekk ci kër gi. ñu teg ci gën yi fekk ci borom kër gi. ñu teg ci gën yi fekk ci borom kër gi. bàyyi wuñu kenn fàttewuñu kenn. nee na bàyyi wuñ fàttewuñu kenn. amuñu xam-xam bu ñu fi waxee. nee na fii ñoom amuñu xam-xam bu ñu fi waxee. li ñu wax ne rek wax ngeen dëgg yéen ñi gërëm Cheikh Ibrahim. nee na dañuy wax rek ne wax ngeen dëgg yéen ñi gërëm Cheikh Ibrahim. yàlla dafa nekk këriñ boo xam ne bii. yàlla dafa nekk këriñ ceef goo xam ne nii. feeñal mu yónni Cheikh Ibrahima si ñun. nee na feeñal mu yónni Maolana Cheikh Ibrahima si ñun. nag bu ko yónniwul woon xëy na ñu waaye loolu xam bi mu yónni ko ne ndax bu ko yónni wutoon si ñun bu ñu layee ak moom xëj na ñu yey ko nee na xëj na loolu la xam ba tax mu yónni ko nag Cheikh Ibrahima ku ku mu yónni si ñoom rek yow boo nangoo yónni bi texe mu ne ndax Cheikh Ibrahima képp koo xam ne yónni nañ ko si yow nee na boo ko nangoo rek texe nga mu ne si àdduna ak si àllaaxira mu ne si lu feeñ ak si lu nëbbu. ku ko liggéeyal tam yàlla dina la feeñal ba ñëpp xam ne liggéeyal nga. nee na ku ko liggéeyal tamit yàlla dina la feeñal ba ñëpp xam ne liggéeyal nga ko. li tax eh, mbooloo bi daje fii ci kër gi nee na li tax mbooloo mi daje si kër gi te ki tax ñu daje fii teewul. mu ki tax ñu daje fii teewul. nee na liggéeyal Maolana Cheikh Ibrahima rek a tax. déglu nañu ci kasetu Cheikh Ibrahima. nee na déglu nañ sa kasetu Baye. gàmmo 68. nee na gàmmo 1968. bi mu defee gàmmo gi ba pare. nee na mu defee gàmmo gi ba pare. carte d'identité mu nga ci Alaaji Cheikh Ndaw mu ne am na ku mu woo mu ne ko sa carte d'identité mu ngi ci Alaaji Cheikh Ndaw Alaaji Cheikh mu ne kon nga wara xam ne Alaaji Cheikh Ndaw soriwut ko woon jóge na fi jóge wu fi. nee na jóge na fi waaye jóge wut fi de. ku fi ñëw teew tey ñu ne borom kër gi nekk fi. boo xamul doo ko gëm. nee na ku fi ñëw tey ñu ne la borom kër gi newut fi nee na boo xamut doo ko gëm. bu fekkee ne ñi mu bàyyi ñoo ko wuutu. mu ne bu fekkee ne ñi mu bàyyi ñoo ko wuutu. doy nañu ay wuutu. nee na ñoom kat doy nañu ay kuutal. bu fekkee ne ay kii jigéen bi bu fekkoon ne kii ndey kumba mi rek la bay. nee na bu fekkoon ne ñim bàyyi ndey kumba rek la. dina doy. nee na kon dana doy sëkk. ndax doy na góor ñu nee na ndax mun na góor ñu bëree bëri. ndax bari li ñuy liggéey moom kenn dina ko liggéey. nee na ndax am na góor ñu baaree bari li ñuy liggéey moom kenn kott mën na koy liggéey. mu ngi koy liggéey ci ci ci diine bi. nee na mu ngi koy liggéey si diine bi. ci njaboot yi. nee na mu ngi koy liggéey si njaboot gi. mu ngi koy liggéey si gan yi. mu ngi koy liggéey si gan yi. mu ngi koy liggéey si jaamu yàlla yi. mu ngi koy liggéey si jaamu yàlla yi. mu ne te ñun loolu xam nañ ci dara. bu fekkonte ne keroog bi ñu Alaaji Cheikh Ndaw waxee. nee bu fekkonte ne keroog bu ñu Alaaji Cheikh Ndaw waxee. Alaaji Cheikh Ndaw dafa ñëw wax xitma boo xam ne bii. mu ne Alaaji seex Ndaw dafa ñëw wax ma boo xam ne bii. doy boobu rek doy na. boobu rek doy na. doy na ne la. nee na doy na ne borom cër la.

dal leen ci mu ne bisimila dal leen si kër gi. ñu ñëw fekkaat ko fii ci at boobu. mu ne ñu ñëw fekkaat ko fii si at boobu. bi ñuy tàggoo ak moom. bi ak moom. mu ne ñu bu déwénee. mu bu déwénee. bu ma fekkee fii. bu ngeen ma fekkee fii. dal leen ci kër gi. dal si kër gi. bu ngeen ma fekkut fii. dal leen si kër gi. si kër gi. nu mu gën feese moom mu ne ndax kër gi nu mu gën a feesee loolu mooy li may gënal. ñibbi ay weer tuuti rek. mu ne ba ñibbee ba mu tolloog ay weer ak mu teg. ñu dégg ne wuyu ji ñu dégg ne góor ga kat wuyu ji na boromam. at bële la mu doon wax. mu ne kon at bële la mu waxoon. mel xamoon na ne dina ko mu ne mel na ne xamoon na ne dina ko fekkaat. waaye at bii mu mujj wax tamit. mu ne waaye at bii mu mujj wax tamit. wane na ne xamoon na ne du ko fekkaat. mu ne wane na ne xam na ne du ko fi fekk. mu ne loolu borom cër rek moo ko am. yàlla day def lu ko soob. mu ne tey yàlla day def lu ko soob. yàlla def na loolu. mu ne yàlla nag def na loolu. ay gan lañu. mu ne comme ñoom ay gan lañ. waaye nekkatuñu gan ci kër gi. mu ne waaye nekkatuñ gan si kër gi. ku fi ñëw ñoo ko war a dalal. nee na fii ku fi ñëw ñoo ko war a dalal tagal ko. li tax borom waa kër gi ñoo ko may. mu ne loolu li tax ñu mun ko borom kër gi waa kër gi moo leen ko may. duñu indi dara. mu ne bu ñuy ñëw duñu indi dara. du def dara. duñ def dara. duñu joxe dara. mu duñ joxe dara. waaye duñu xiif. mu ne waaye duñ xiif. duñu mar. duñ mar. dara jaaxal. mu ne dara du leen jaaxal. dara du manqué. mu ne dara du manqué. kon nekk ñoom ñoo ñu may ay borom mu ne kon ñoom ñoo leen may ñu nekk borom kër gi. yaakaar naa ne fii jiitu. mu ne ñii yaakaar nañ ne ñoom leen fi jiitu. ñun ñoo leen fii mujjee. ñoom ñoo leen fii mujjee tamit. mu ne kon ñoom bu ñëwee ñoom ñoo leen war a dalal nee na mu ngi jéggalu nag mu ne si kanamu sëriñam mu ne di Cheikh Abdoul Aziz Ndiaye mu ne ndax dafa bëri teggin ak yar wallahi dëgg mu ne waaye moom mooy sëriñu ñëpp. waaye dafa jël sëriñ gi bokkul sëriñ gi mu taalibe bi moo ko gënal nekk sëriñ. mu ne waaye dafa jël sëriñ ki teg nee soxla wu si dara doon taalibe ko gënal. Euh, sëñ Mahi Niass. nee na Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass. mos na ñëw sunu kër. nee na mos na ñëw seen kër. mu ne ñun yéen li mu ne yéen li ngeen bàkkoo. moo gënal moo moo gën ñun li ñuy bàkkoo mu ne moo gën ñun li ñuy bàkkoo ndax yéen da ngeen di bàkkoo ay taaliba Cheikh Ibrahima ngeen mu ne ndax yéen da ngeen di ne ay taaliba Cheikh Ibrahima ngeen ñun dañuy ne ay Cheikh ne te ñun dañuy ne ay Cheikh lañ Cheikh ne te Cheikh Cheikh wax ji mu ngi bëgg gudd ne wax ji mu ngi bëgg gudd ci xam-xam te xam-xam teguwul ci dara. nee na ci dara. ak ñi wax. nee na ndax ñi fi wax. ak ñi fi toog. ak ñi fi toog. mel ne man ku kéebu mel ne man. mu ne ku xeebu ku mel ni moom. ñu ne mu ne ko wax ci seen kanam. mu ne mu ne ko su suñ kanam. kon yem fi mu war a yem mu ne kon na yem fi mu war a yem. mu ne kon nag yem na foof nee na asalaamaaleykum wa rahmatulah. xam nga pël yi dañoo bëgg lu yomb. te fexe nekk séeréer la wax ji rafet na macha allah yal na yàlla dëgëral leen ñoom it li ñu leen di teralee yal na leen ko yàlla gën a mun loo si barke baay wa rahmatullah sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullah nee na ngi sant yàlla neena ma mu ngi ci yonte yalla Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. sallam nee na di ndokkeel jaamu yàlla yi fi tew yeb nee na di ji si di ci jital nijaayam nee na ay nijaayam nee na ak ay tantaam nee ay mbokki taalibeem nee ndax kër gii nee na la yaro nee na fi la nampee li mu namp nee na waxoon na fi daaw ne nee na mbokk indiwut ko fi nee na yàlla moo ko fi indi nee na ndax yàlla lañ ko fi nàmpatal nee yàlla la fi jëlee nee na la fi jëlee nee na bëgg yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lañ fi jëlee. nee na kon kër gii. nee na seen kër la. waaye nee na wax na ko léegi du kër mbokk ak deret de. nee kër mbokk ak yàlla la. nee na wax na fi daaw itam ne. nee na bu doon mbokk rek. mu ne kon ñu bari duñ fi teew tey. nee na kon li ñu fi dajale yàlla rek la nee na ñu ngi sant yàlla bu baax nee na di gërëm ñëpp di sant ñëpp nee na di si jiital ay nijaayam nee na ndax opportunité bii ñu am ñoom ñoo ñu ko may. nee na buñ ne woon bu fi kenn teg tànkam. nee na bu wala bu fi kenn yëkkati turu yàlla. nee na bu boobaa it dara du fi am. ne dañuy ñëw yundoo rek delluwaat. mën na waaye doy nañu rek. ñu dugal suñ tànk ci kër gi rek. ñu dugal suñ tànk ci kër gi. dinañ ci am ay fàttaliku yoo xam ne. ñooñu dinañ ci am ay fàttaliku yoo xam ne. nee na moo ñu gënal junney milliard. nee na yàlla xam na ko. nee na heure bu ñu ne yunnu ci kër gi. nee na yëg-yëg bi ñuy yëg. Baye Cheikh Ndaw fàdduwut. nee na dafa mel ne Baye Cheikh Ndaw fàdduwut. nee na dafa mel ne mu ngi taxaw suñu kanam. nee na dafa mel ne mu ngi wax ak ñun. nee na loolu xamul ndax moom rek moo koy yëg. nee na waaye moom loolu lay yëg. nee na kon kër gii. nee na seen kër la. mu ne kon nag ñu ngi sant yàlla. bu ñu yàlla booleeg Baye Cheikh Ndaw. mu nga xamne tay teranga buñu am yere bu cher buñu sol yére bu cher dawal ci barkeem la si barkeem la mu ne ndax ñoom jànguñ dara takuñ dara amuñ dara neena ay baadoo la rek lañ ñu na way buñu yalla dimbalé ba kuñu gis nawñu ba kuñu gis nawñu kuñu gis bëgguñu ku ñu gis taral ñu. nee na loolu ñu ngi ko amee ci barke Baye Cheikh Ndaw. nee na kon kooku amuñu fayam. mu ne kon jërëjëfee Baye Cheikh Ndaw. nee ñu ngi sant yàlla bu baax. nee na di wax ne Baye Cheikh Ndaw. nee na buñ toogoon fii ba suba. di wax ci moom. tàmbali sax bay jeexal. mu ne du tàmbali sax bay jeexal. ndax waliyu yàlla yi géej lañ. nee ndax waliyu yàlla yi géej lañ. loo ci mos rek. nee na loo ci mos rek. doyloo ko doyloo leen xuus ba jeexal leen. nee na waaye kenn mënu leen xuus ba du jeexal leen. doy na rek ci xam-xamu zaahir. nee na doy na rek ci xam-xamu zaahir. yàlla mayoon na ko. nee na Baye mu nekk xaafisul Qur'an. seede la ndax moom seede la si. ndax benn bés. mais ndax benn bés. ànd moom ci jàkka. nee na moom si jàkka. xam naa imaam mel ni man. mu ne xam na imaam bi dafa mel ni moom. ci saar yu kawe yi. yu kawe yi. la rek di wàcc. mu ne la tàmbalee rek di wàcc. day dal bu nekk nag. mu ne day dal imaam bu nekk nag. nee ndax alxuraan moo mel noonu. nee na benn nga jaawale wala nga runge mu ne xam nañ luy runge nee na imaam bi muy jàng saar moom moom nag yàlla dimbale woon na ko fa imaam ba tolloon mu ne xawoon na ko yab tuuti nee na ba mu fa tolloo mu taxaw mune mu deg ba Cheikh Ndaw mune dem ba ci aya ba. mu taxaw. mune imam bi soko topat ci ginaaw ñu motali julli gi. mune koku kon kangam la hon ñen Cheikh Ibrahim Niass. ñiko woron nena amul kenn ku ci tuti mu ne rek. ci xam-xamu mu ne li olof yi di wax ma fekkee moo gën dañ maa nettali mu ne toog na fi ay yoon Alaaji Abdoulaye Niass Papa As mu taal otoom mu ñëw ba si buntu kër gi fii jël si ko jël ko ànd ak si ñu dem defi miras miras ma ndax miras xam-xam la boo xam ne mu ne xam-xam la boo xam ne ba ko ba ko dañu ne miras mooy université mu ne dañ ne miras mooy université mooy leçon université mu ne mooy leçon université yi boo xam-xamu daara yi mu ne boo jàngee xam-xamu daara yi ko ci ay lu ko ci ay maqamatul hariri ñom maqamaatu xariri ñoom xalil ñoom xalil ba jeexal ko nee na ba jeexal ko boo duggee ci mirage nee na duggé duggee ci miiras day melni yaangi tambalé jang nak jàng day melni yaangi tambalé jang dafa naa ne maqamatul xariri mu te dafa dafa mu ne maqamatul xariri maqamaatu xariri ñi ko jàng bëriwut ñi ko jàng bëriwut ñi ko firi it bëriwut ñi ko mën a firi it bëriwut kon foog nga jeexal téere yooyu yëpp. mu ne kon foog nga jeexal téere yooyu yëpp. mën a jàng miiras. mën a jàng miiras. Baye Cheikh Ndao nag yàlla daf ko dimbale woon. mu ne Baye Cheikh Ndao nag yàlla daf ko dimbale woon. xam-xamu miiras. ci xam-xamu miiras. kàngam la ci woon kàngam la ci loolu li may wax xam naa ko bu baax mu ne wax xam na ko bu baax. doy na ci rek sama benn jarbaat. ñu ne doy na si rek benn jarbaatam. foog naa bu ñëpp xam ko. mu ne foog na ne bu tuddoon turam ñëpp danañ ko xam. yalla daf ko dimbale won mu meuna bind. mune yalla yàlla daf ko dimbale woon mu mën bind. bu rek bind yi day rafet. mune bu bindé rek bind yi day rafet. mom la Baye Cheikh Ndaw. la Baye Cheikh Ndaw. daan wax ne dem. daan wax ne fu dem. naa ànd ak yow. na and ak yow. bu may def miiras. mune bu may def nga ma di bindal. mune mën na wax. kon lolu dañ ci jangé rek. nekk ñaa àndal du nit ku tuuti du nit ku ndaw nee na ndax waliw yàlla yi mu ne ni ñuy gisee si kanam mu ne noonu la ñuy gisee seen ginnaaw nee na waliw yàlla yi buñ génne àdduna nee na seen maqaama day gën a foor buñ mënoon benn dinañ mu junne mu ne doy na si rek benn waliw yàlla taalibeem dafa mos a ñëw ne ko mu ne man de jaaxle naa mu ne te xam naa ne léegi tey nga dem mu ne li ko jaaxal nag mooy boo dëddoo àdduna fan laa lay gisatee fan laa lay gisatee mu ne bu ma amee soxla fan laa koy ñaanee mu sëriñ bi ne ko mu ne bés bu ma dëddoo àdduna ñëwal na nga fi daan ñëwee. mu ne la nga doon wax nga wax ko. ni nga ma fi fekkee tey. mooy ni nga ma fi fekkee tey. ni ma lay wuyoo. mooy ni ma lay wuyoo. noonu la gën a mun a wuyoo. mu ne noonu laa la gën a mun a wuyoo. su ma génnee àdduna. mu ne kon loolu seede la bu wër ne. Baye Cheikh Ndaw. ginnaawam. moo gën a rafet fuuf. moo gën a jekk fuuf. ndax Baye day wax ne. taw bi jiitu. mu ne ñi taw bi jiitu. taw bi jiitu. taw bi jiitu. ak taw bi ci digg bi. ak taw bi ci bi. ak taw bu mujj bi. ak taw bu mujj bi. kenn xamul ku ci ñoral gàncax gi. benn xamut bu si ñoral gàncax gi. taw bu njëkk bi. taw bu njëkk bi. bu amutoon. bu amuloon. xëy na gàncax gi du judd. mu ne kon gàncax gi du judd. taw bi ci digg bi. mooy taw bi ci digg bi. bu amuloon. xëy na gàncax gi du du jébbi ba màgg. mu ne xëy na gàncax gi du jébbi ba màgg. taw bu mujj bi. taw bu mujj bi. itam. mu ne kon gàncax gi kenn du ko jëriñoo mu ne kon lépp kon taw yëpp baax na mu ne ñun nag yàlla daf ñu dimbale mu ne ñu ruusoo góor gu baax googu mu ne daan ko liggéeyal si suñ ñaq si lu néew mu ne ndax amuñu woon ñaar dërëm yuñ ko jox mu ne waaye heure bu ñu yónnee ñu dem bu amoon soxla ñu taxaw si nee na buy dem jumaa ja sax mu ne moog sëriñam bii ñoo a ànd téyel ko ay dàllam téyel ko parisoolam donte moom loolu gën a lu ko woon trop mu ne waaye loolu day tegtale oyof gu mu oyofoon ak nu mu ñàkkalee boppam ak nu mu ñàkkalee boppam gis na ne moom sax nekk fi. nee na moom gis na ne moom sax nekkut fi. defe naa turam yu gën a siiw. ne foog naa turam bi gën a siiw. ñu koy wax ananga. mu koy ñu koy wax ananga. mooy ay na anta. ay na anta. mu ne mooy yow yaay kan foo nekk yow nekkoo fi yow gisuma la yow xooluma la man yàlla laay xool yàlla laay gis nee na kooku mooy ananga man anta loolu araab yi di wax nee na yàlla dafa am ñett yuñ koy woowee muy anta ak ana ak huwa ak xuwa anta googu nag mu ne anta googu nag ci la Baye Cheikh Ndaw nekkoon ku koy woo rek ku koy woo a ana nga ko koy wax ana nga ko koy wax ba turam bi sax réer na ko ba turam bi sax na ko radiyallahu anhu kon kooku mu ne xaarifu billaahi bu mag la nee te looloo ko indi woon ci Cheikh te jot na càkkutéefam mu day wax ne Baye Cheikh Ndaw yonentu yàlla ayuba nee dafa dundoo dund yonentu yàlla ayuba yonentu yàlla ayuba yonentu yàlla ayuba yàlla daf ko natt woon mu ne yàlla daf ko natt woon mu am nguur mu am nguur bëri alal lool yàlla dimbale ko mu nekk yonent mu ne ba ko yàlla di tarbiya di ko jësbu daf ne ko Iblis dafa ne yàlla. Iblis dafa ne yàlla. gis nga ayoba mii. mu ne gis nga ayoba mii. alalam ju bëri ji. alalam ju bëri ji. doomam yu bëri yi. doomam yu bëri nguuram gi. nguuram gi. bés boo ko jëloon rek. boo ko jëloon rek. mu weddi mu weddi la. yàlla ne ko aywa essayel. yàlla ne ko aywa essayel. Iblis ne ko nattuma ci alalam ji rek. Iblis ne ko nattuma ci alalam gi rek. yàlla ne ko demal. yàlla ne ko demal. Iblis am na mu def comme ni ko Cheikh Ibrahima nettalee. def comme ni ko Cheikh Ibrahima nettalee. ba alal ja dem. ba alal ja dem. amaat nu def. amaat num def. ba doom ya dem. ba doom ya dem. amaat nu mu def. amaat nu mu def. ba dugg ci yaramam. ba dugg ci yaramam. ba wéradi ko. ba wéradi dugg ko. li ci intéressé mooy. nee na li ko ci intéressé mooy. dafa ne yàlla yow dafa ne yàlla. maa ngi lay ñaan sama xol bi de sama ñaan naa la moom bu ko dara laal xol la soxla xol boobu la yàlla soxla woon ba mu demee ba nga xam ba nga demee ba nga xam ne sonn na dafa woo yàlla inni inni ah, wa anta wa anta arhamu rahimin mu ne yow yàlla de lor jot na ma mu ne boobu yàlla mu ngi koy jës bu ci pays bi nee ndax xol bi rek la yàlla soxla woon mu ne yàlla bàyyi loo na ko alalam bàyyi loo ko ay doomam bàyyi loo ko nguuram bàyyi loo ko lépp ba mu des ak kese mu ne muy xolam ba nee na boobu nag la ko yàlla dellooxaat yàlla ne ayuba delloo naa la say doom delloo naa la la nga amoon delloo naa la say jabar mu ne loolu dafa dal Baye Cheikh Ndaw mu li muy nettali nii nijaay bi ko gën a xam nee ndax Baye Cheikh Ndaw buur la xeet bu mu bokk ay buur lañ dañ ne ko woon kaay ñu far la buur mu bañ ñoo topp Cheikh Ibrahima ñoo topp Cheikh mu ñëwee ci Cheikh Ibrahima mu ne bu ñëwee ci Cheikh Ibrahima bàyyi alalam bàyyi alalam bàyyi ay mbokkam bàyyi ay mbokkam bàyyi lépp bàyyi lépp ana lu ko Baye Niass fayee ana lu ko Baye Niass fayee mu ne waaye Baye Niass fayee na ko suñu sëriñ bu baax bi di Cheikh Abdoul Aziz Ndiaye mu ne Baye fayee na ko keneen ak keneen nena bay fay nako jotay bi nena bay fay nako na ko turam dootul fay ba abadan nena bay lepp lu mu am da koy bok ak ay talibé nena bepp bépp bu Cheikh Ibrahim am bu ko Baye Cheikh Ndaw geddut dina ko am si kàttanu yàlla nee na loolu nag wax ju xóot la nee ndax Cheikh Ibrahima dafa tabe tabe koo xam ne lépp lu mooy dina ko jox taalibeem mooy desewut dara mooy te Baye Cheikh Ndaw mii di ñu sës ci Cheikh Ibrahima la mooy ndax Cheikh Ibrahima moo ko jox ndigal waaye moom musul gis kum ci kanam wala kum may wér nee na kon kooku Cheikh Ibrahima sedd na ko. mu ne waaye gis nga bi mu bàyyee lépp. ci la ko yàlla fayee li moom am. mu ne te lii kat mooy li ñu gis. mooy zahir bi rek. nee na waaye baatin bi kenn xamul nu mu yem. mu ne kon ñu ngi ndokkalaat suñu nijaay. di leen gërëm bu baax. ndax sañu ñoo dugg si Medina. te yegg si wuñu ci kër gi. defee rek. nee na bu def nañ loo xam ne waruñu. def nañ loo xam ne waruñu. ndax amuñu fenn fu kër gi. nee ndax amuñ fenn fu ëpp gi. kenn ku ëpp euh, Baye Cheikh Ndaw. nee na amuñ kenn ku ëpp Baye Cheikh Ndaw. nee na kon bu ñu fi ñëwee rek. dañ fee war a ñëw. mooy te jàpp na ne Baye Cheikh Ndaw mu ngi fi toog. nee ndax yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne. alwaladu. sirru abi nee na doom muy mbootu baayam nee na Cheikh Ibrahim wax ne maa laaj Abdoulaye daan na wax ne doomam la tekkiwul lu dul ne mooma kon ñun jàpp nañ ne fekk nañ fi Baay Cheikh Ndaw mu ne bëgg nag ñoom ñu ñaanal ñu yàlla li ñu Baay Ndaw doon ñaanal ci mbaaxam xam nañ ne bu ngeen ñu ñaanalee rek yàlla dina nangu seen ñaan ñaan asalaamaaleykum wa rahmatullah bàyyi joxe nañ ko fi suñu baay nee na salaamaaleykum mbooloo mi. nee na ñu ngi nuyu Cheikh Abdoul Aziz Ndiaye ak Seydi Ibrahima Diop. nee na ak ñi ànd ak ñoom ñëpp. dañuy wax sànq ba léegi naan ñoom doom lañ ci kër gi naan Cheikh Abdou Cheikh Abdoul Aziz caat la. mu ne dañuy wax boobu léegi naan ñoom doom lañ si kër gi Cheikh Abdou Aziz Thiat la ñu ne mooy caatu baay Cheikh Ndaw xanaa loolu si zahir la ñu ne xanaa loolu si zahir la si baatin si baatin taaw la mu ne wala mu bokk ci taaw yi mu ne ndax dafay liggéey Baye Cheikh Ndaw lu mu gën a bëgg mu ne yàlla ak yonente bi ak Baye Niass nee na loolu la Cheikh Abdoul Aziz Ndiaye di liggéey. mu ne kon moom taaw la. nee na Cheikh Ibrahima Diop mii loolu la nekkee Ndakaaru. mu ne at bu jot mu def ziyaara bu mag. bu Baye Cheikh Ndaw. ñu def ko ci mbedd mi. mu ne mu fees dell responsable jóge fu nekk ñëw. ma delluwaat nag si di wax waxu Baye Cheikh Ndao parce que wax ngeen ko ba pare. mu ne du delluwaat nag di wax waxu Baye Cheikh Ndao parce que wax nañ ko ba pare. waaye damay wax ki tax baay ñu dajee fii. mu ne waaye day wax ki tax ñu daje si guddi gii. muy Cheikh Ibrahima Niass. muy Maolana Cheikh Ibrahim. yàlla da koo may lu nga xam ne. nee na yàlla da koo may loo xam ne. sallallahu alayhi wa rek la ko mayoon. nee na yonte yàlla Muhammad sallallahu rek la ko mayoon. dëkk boo dem. mooy dëkk boo dem. boo ay jullit. boo am ay jullit. di nga fa fekk taalibe Baay. di nga fa fekk taalibe Baay. man dem dëkk yu sore yu nga xam ne 24 heures ngay nekk avion. nee na moom dem na si dëkk yu sore sore yoo xam ne 24 heures di nga ko def sa avion. di nga départ fii 5 heures. mu ne di nga départ fii 5 heures. mu ne yàgg suba si guddi. mu ne boo fa demee fekk fa taalibe Baay. mu ne te du Sénégalais de. mun a waa dëkk boobu lañ. dafa am événement bu fi am ren. mu ne dafa am événement di ko waxtaanee. ñu ne Sénégal yëpp di ko waxtaanee. muy mbiram Cheikh Mahi Niass Ibrahim. muy mbiram Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim si Soudan. si Soudan mbir moomu. nee mbir moomu. ñu bari day day bees ci ñoom. mu ne ñu bari dafay nekk lu bees ci ñoom. mu bett leen. mu ne wala mu ju bett leen. waaye 1937. mu ne waaye bàyyi Cheikh Ibrahima Niass njëkkee mu ne bi Mawlana Cheikh Ibrahima njëkkee dem Màkka. que bu dee 37 boobu nit ñi Abdoulaye wax. mu ne bu fekkee 37 boobu nit ñi Abdoulaye Baba Yoro la ñuy wax. bi nekk Nigeria Kano bi nekk Nigeria Kano. waaye si la xam ki ñu wax Abdul Kasim Jiné. mu ne waaye si la xam Abdul Kasim Jiné. voilà dëkk moo tudd Jiné. mu ne dëkk moo tudd Jiné. waa Soudan la mag la woon. mu ne waa Soudan la mag la woon. moo nekkoon jullit yi nekk Soudan yëpp moo nekkoon seen sëriñ. mu ne jullit yi nekk Soudan yëpp moo nekkoon seen sëriñ. daje bi Baye dajeeg Baye Baba Yaro. nee na Baye daje bi mu dajeeg Abdoulaye Baye Yaro. si la dajeeg waa jooju noonu. nee na si la dajeeg waa jooju noonu. Abdul Kasim boobu. nee na Abdul Kasim boobu. si xabru. si xabru. si euh, gën di mindeef Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. si xabru yonte yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. si la ko maas lim ko maas. mu ne si la ko maas prise ba mu ko maasoon. mu ñibbi ci Soudan. mu ne mu ñibbi Soudan. am fa ay taalibe am fa ay taalibe lawal fa fayda bi loolu ñu bari foog nañu bees la lu yàgg la loolu mu ne loolu ñu bari xamuñ ko waaye histoire bu yàgg la 1900 2003 dama dem Màkka nee na 2003 dafa dem Màkka jël bus mu ne ñu jël bus jógee Minna jëm Arafat jógee Minna dem Arafat no asafala jógee Arafat di ñibbi Minna mu ne jógee Arafat di ñibbi na am chauffeur bi ñuy discuter moom jaaral fii du ma jaar fii. mu ne chauffeur bi bi ñuy discuter moom jaaral fii du ma jaar fii. chauffeur bi soudanais la. mu ne chauffeur bi soudanais la. si biir bi dafa amoon soxna Maulana Cheikh Ibrahim. ak ay doomam. nee na si biir bus bi dafa amoon soxna soo xam ne soxna Maulana Cheikh la woon ak ay doomam. ak wala sax ay sëtam. mu ne wala sax ay sëtam. am bi maa doon làkk anglais parce que waa ji anglais rek la dégg. mu ne bi ñu moom mii moo doon làkk anglais parce que waa ji rek la dégg. mu jékki-jékki am ku ne Cheikh Ibrahima Niass. mu ne mu jékki am ku ne Cheikh Ibrahima Niass. chauffeur lu mu wax noonu Cheikh ko kooku mu wax noonu mu ne ko waaw. mu ne ma da xam Cheikh Ibrahima Niass. mu mu ne ko soxnaa ma ngi nii toog mu ne chauffeur bi gaari si benn épicerie mu ne jënd la fay ndox ak lekk yëpp dugal si bis bi mu ne kat tëdd doon xuloo mu ne xuloo ba jeex mu ne bi mu ñibbee day teel a wàcc tey dem jëli daayare bi ñu dem ziyaare si minga ma koy waxtaan ak moom ma ne ko yéen mu ne ma mu ne en 2003 mu ne 8 millions de soudanais lañ compté woon taalibe Baay. kii ñëw na fii nu mu tuddati président Obasanjo. mu nee na président Obasanjo bu Nigeria ñëw na fi. parce que vice président am taalibe Baay la woon. mu ne parce que vice président am taalibe Baay la woon. nee na bi paree nguuram. ñëw na fii Medina. Medina. mu ne fekk mu ñëw Sénégal. nee na moom bi mu nekkee président Nigéria 60 millions de taalibe Baye la calculé woon. nee na moom bi mu nekkee président calculé woon na 60 millions de taalibe Baye Niass. nee na te loolu biir Nigéria kese la woon. nee na loolu mooy 4 fois population Sénégal. nee na ngeen baal ko ci kaddu gi. mu ne ku bañ a sa sëriñ bu jéggi frontière bi. nee na boo fi génnee ko fi gis mu top benen sëriñ bu dul sénégalais nee na bàyyi ñu la topp. nee na fo dem fekk ko fa wallahi gis na ko ci zone yo nga dekk yi ma ngi ak vidéo yi nga xam sax dama koy bañ sonalé di len ko wan waye yu yéme la sax dajé ak bay ci fu nga xam ne nii munoo imaginer ne bàyyi taalibe ma ngi fii. nee na yor na vidéo yoo xam ne dañuy bañ a sonal du ko won mu ne waaye da ngay dem si dëkk yoo xam ne nga daja faak ay taalibe baay waroo doo ko doon mun a imaginer mukk. waaw léegi nag sànq junj nañ euh, lamp bi bi waraloon sama mag ji muy suñ xalif jox ma ndigal may wax muy rakk topp suñ xalif alaaji Ablaye Ndaw junj nañ lamp gàmmu ga moom taalee euh, Baye Cheikh Ndaw taalee lamp yi nee junju nañ gàmmo gi nga xam ne Baye seex Ndaw taale woon na làmp yi li waral tey Cheikh Ibrahima mi toog nekk seen xalif topp si xalifa bi Cheikh Abdoulaye Ndaw jox ko ndigal muy wax junju nañ fi aussi mai 68 mu ne junju nañ fi tamit mai 68 waaye damay dellusiwaat si Baye Cheikh Ndaw ak mu ne waaye dafay dellusiwaat tuuti si Baye Cheikh Ndaw ak Baye Baye Cheikh Ndaw dafay nekk li ñuy wax taalibe pour loolu taalibe moom loolu. mu ne Baye Cheikh Ndaw dafay nekk pour li ñuy wax taalibe. taalibe lay waxal. nee na mu nekkoon ak Baye Cheikh Cheikh al Islam. nee na loolu lay waxal ni mu nekkoon ak Mawlana Cheikh Cheikh al Islam. Euh, Cheikh Ibrahima Niass dafa mus a feebar. nee na Mawlana Cheikh Ibrahima dafa mus a feebar feebar bu metti docteur Bawo. docteur baawo yàlla def na sax ñu dox ba doomam ñu nekk xarit ma ak moom. nee na yàlla sax def na ba moom ak doomam ñu nekk xarit. mu nekkoon Kaolack fii dem seet si Baye pour faj ko. mu ne mu nekkoon Kaolack fii doon seet si baay pour faj ko. kër gi yëpp jaaxle parce que Baye dafa woor te foog ñu piqué ko wala ñu perfusé ko parce que sonnoon na. mu ne kër gi mu ne kër gi yëpp jaaxle parce que boobu Baye dafa woor te il faut dinañ ko piqué mbala ñu perfusé ko. weeru koor nag ñoom Pa Sëriñ Aliou ñoom Papa As ñëpp jaaxle. mu ne weeru koor ñoom Pa Sëriñ Aliou ñoom Papa As ñëpp jaaxle. mu oolu moom saa yu Medina liggéey rek mu ne ooy leen euh, Baye Cheikh Ndaw. mu ne Sëriñ Aliou moom koor bu Medina liggéey rek mu ne woo leen Baye Ndaw. góor gi ñëwee. na bu góor gi ñëwee. nee na Pa Cerno Diallo. nee na ana Pa Cerno Diallo. moo doon nodd mooy papaay Korka Diallo bii. mu Muna rek ko su ma duggee si néeg rek demal nodd Muna ko may ma cinq minutes rek nga nodd mu ne parce que bobu takusan nga soko soog nek bay dafa amoon haut bu nga daan bi dañ fa defon opaleur bo boy nodd day joxe ci nek bi bobu bay dàq na ñep mu bobu bay na ñep góor gi Baye Cheikh Ndaw duggee. mu ne bi góor gi Baye Cheikh Ndaw duggee. bëkk néeg bi ah, ñeme nga ko mu ne bëkk néeg bi ñeme ko woon téye. Ah, mu ñëw rek dugg sëriñ bi ne ko ah, mu ne ko dama dégg da ngaa feebar ma ñëw seet si la. mais xam nga ku or ba tàkkusaan da ngay boole surtout feebar da ngay nelaw ba pare da dootoo am notion du temps. mu ne surtout ku feebar weer ba tàkkusaan mu ne da ngay mu ne da ngay sonn te dootoo am notion du temps nee na dootoo xam bañ waxtu moo jot. Cheikh Ibrahima dafa benn vase bu nekk bu nee na Cheikh Ibrahima dafa amoon benn vase bu rouge bu nekkoon néegam. moom na moom lay taal. nee na néeg bi day lëndëm du am benn lumière. Cerno Jallo nodd mu ne ñu toog cinq minutes rek Cerno Jallo nodd Baye Cheikh Ndaw génnee tàndar ma jox bàyyi mu lekk mu ne Baye Cheikh Ndaw génnee tàndar ma jox bàyyi mu lekk dafa lekk jox bàyyi mu lekk ne ko sëriñ bi euh, euh, euh, kii jot na dog jot na dafa lekk jox mu lekk ne ko sëriñ bi dog jot te boobu bi ñu jullee tàkkusaan matul di un quart d'heure nee na boobu ak bi ñu jullee tàkkusaan matul quinze minutes bi Baye dogee rek sëriñ Baye euh, Cheikh Ndaw génn woo médecin bi ne ko kaay piqûre bi mu tijjee bunt bi Baye gis ne timis jotagul. bi mu tuddee bi mu tijjee bunt bi Baye gis ne timis jotagul. mu ne ko sëriñ bi dañoo am si soxla. mu ne ko sëriñ bi dañoo am si soxla. munoo demee noonu dafa teel. mu ne ko munoo demee noonu dafa teel. waaye dafa muñ rek waxul dara. mu ne waaye Baye dafa muñ rek waxul dara. dafa comprendre la moo taxoon keroog mbir dina yëpp ñëw di ko parce que pexe bu mu tegoon la mhm. waaye xam ne ne loolu mu ne loolu lu yàlla di nangu mu ne après Medina yëpp dañu mujjoon ñëw ti ko remercier mu nekk parce que Baye comprendre na li xew. voilà léegi nag loolu loolu loolu bu mu ne loolu bu ngeen nekkee seen sëriñ. xam ne mbiru bu nekkee mbiru yàlla lu mu nee na même bu nekkee mbiru yàlla lu mu santaane. mu ne sëñ bi nekk si. mu ne nar koo lor. mu ne te yéen ngeen nekk si dëgg boo xam ne mën ngeen fexe ba sauver loolu. mu ne jàppale leen ko mu ne sëriñ bi taalibe la am mu ne waaye taalibe yi sëriñ bi la ñu am mu ne donc il faut ñoom ñuy déggoo mu ne loolu moo waral mais affaire mai 68 gi ñu wax julli bi euh, mu ne loolu moo waral tamit lumière yi ñu taaloon mu ne ziyaare bii nii ngeen def fii léegi Baye Cheikh Ndaw moo ko njëkk organiser organisé d'une façon formelle en 1956. nee na Baye Cheikh Ndaw moo ko njëkk a organisé d'une euh, manière formelle. mooy daf ko daal daf ko bu xam ne daf parce que avant bu nit ñi ziaraat. mu ne parce que moo ko maanaam moo ko. organisé moo ko organisé. avant bu nit ñi ñëwee jox bàyyi ziara. nee na avant bu nit ñi ñëwoon jox bàyyi ziara. da koy distribué waat rek mu jeex. da koy joxe waat rek mu jeex. Medina des ak ay problème mu ne Medina des ak ay problème am. gis Paa Sëriñ Aliou ne nañ def nañ def ziara si jumaa ji. bàyyi gis Paa Sëriñ Aliou ne ko nañ def ziara si jumaa ji. yor di ko bind. yor registre di ko bind. registre boobu sama ko yore. mu ngi ko amee nee na mun na la jox totalité somme bi nee na livre bu rëy la woon ni am couverture bu ñuul nee na buñ ku joxe dañ koy wax si rajo jumaa ji ñuy dégg en direct bind ko waaye ku bëgg nee na waaye ku bëgg a jël xaalis da ngay dem si si baay baay bind signé. Euh, Baye Cheikh Ndao waxee Passe Serigne Aliou premier jour bi. nee na bi ko Baye waxee Passe Serigne Aliou premier jour bi. Passe Serigne Aliou dana ko xanaa da ngaa rep. Passe Serigne Aliou da ko xanaa da ngaa rep. Baye ngay bindloo di ko signaloo. Baye da ngay bindloo di ko signaloo. mu ne ko waaw. mu ne ko waaw. am ku ñëw du ma tudd turam ne ko Baye nee na nga jox ko mu ne ko dama nekk mu bind signé. mu ne mu am ku ñëw du tudd turam mu ñëw ne ko Baye nee na nga jox ma mu ne ko demal nga Baye si signé. bi mu demee mu ne ko ay mu ne ko bàyyi mu ne ko damal mu signé kooku ñëw wax ko bàyyi bàyyi reetaan ko ah Cheikh Ndaw moom tubaab la de moom yëppam day leer. mu ne kooku ñëw wax ko bàyyi bàyyi na ko ah Cheikh Ndaw moom tubaab la de moom yëppam léppam day leer. bàyyi bind si bàyyi bind signé. Ah, kii bi jeexee ay millions la mu yóbbu banque déposé ko. mu ne ba kii bi jeexee ay millions la mu yóbbu banque déposé ko. jox leen chèque yëpp mu ñëw jox Pa Serigne Aliou. mu ne ñu jox leen chèque yëpp ñu ñëw jox Pa Serigne Aliou. muy gérer affaire ga euh, jumaa ji ak famille bi tout ça. mu ne muy gérer affaire jumaa ji ak famille bi tout ça. waaw moom dafa nekkoon ak Baye pour di ko utal ay solution mu ne moom dafa nekkoon ak Baye pour di ko utal ay solution problème bu amoon Medina mu trouvé solution bi. mu ne problème bu amoon Medina mu trouvé solution bi. bari na liggéey xóot waaye bari na yeneen histoire yoo xam ne mën nañu ko nettali daal mais daal kontaan nañ ci daje liggéey bi mhm. ñaan aajo yi fan si barke guddi gi di ñaan yàgg fee yàgg ko dajee amiin yaa rabbi ay ati ati ati at amiin yaa rabbi parce que góor gi Baye Cheikh depuis quatre-vingt-quinze la gaañu amiin ça vingt-sept ans amiin allah ñu ngi fii ñëw hmm. euh, sant yàlla la parce que waaw sant yàlla la di ñaan nag guddi ñu koy fekkee at yu bari gaañu na quatre-vingt-quinze quatre-vingt-dix-neuf taw bi ñëw fii fort Kaolack ñu rob ko quatre-vingt-quinze corps bi génn intact ne musuñ ne musu ne musuñ koo denc waaw gaañu na quatre vingt na gaañu na quatre-vingt-quinze ba quatre-vingt-dix-neuf ba quatre-vingt-dix-neuf taw bu foor ñëw kaw Kaolack taw bu foor ñëw Kaolack koor bi génnaat nee na koor bi génnaat dara yàquut si dara yàquut si mu mel ni nii ñu ngi koy doog a indi tey mu ne mu mel ni ñu ngi koy soog a indi tey mooy yàlla mu ne loolu mooy nitu yàlla yàlla nañu yàlla may fekkee déwén. amiin yaa rabbi yàlla nañu yàlla may fekkee déwén bëri amiin yaa rabbi incha allah ah wax dëgg jàngalaat nga ni lu bëree bëri yéen a yàlla may la gudd fan may lu wér gu yaram incha allah kon nag nañ déglu sëriñ bi ñu xam ne tey mooy xalifa Baye Cheikh Ndaw si jotaay bii muy alaaji Ibrahim Ndaw bisimilah. suñ papa neena assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh neena ñu ngi jël si yoonte yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bég ci yalla lim ñu may ñu fekke waat. mu ne di bég si li nga xam yalla may nañu ñu fekke waat. mu ne jotaay bi mu ne nga xamne dañ koy def. bés bi nga xam ne gën si mbindeef gën si na àdduna. ngir màggal bés bi nga xam ne gën si mbindeef gën si euh, di gërëm. mu ne di gërëm. suñu sëriñ Cheikh Abdoul Aziz Ndiaye. li muy wax si turu. bi nga xam ne mooy si turu El Hadj Ndaw bi nga xam ne mooy xalifa Baye Cheikh Ndaw. moom moo daan jiite daje bi. mu ne ndaxte moom moo doon jiite daje bi. daaw ne daaw buñ fi mujjee tase. léegi. mais daf ko ne léegi. dafa jëm si si mag. la ma mënoon. mënatuma ko. ne léegi daal. bàyyi naa la kër gi. mu ne yow yaay teew. si sama tur di wax si sama tur mu ne loolu moo waral tey jii suñ jotaay bii mu nekk suñ fi suñu baay alaaji Abdoulaye Ndaw nee na waaye lépp lu may wax tamit ci turam la si ay kàddoom la mu ne mu jiital si nag mu ne gërëm gu gërëm Cheikh Abdou Aziz Ndiaye mu ne ndax lii muy defar mu ne Baye Cheikh Ndaw mu ne mu nekk loo xam ne mu ne moom sedd na xolam dëgg mu ne waaye sedd na xolu mboolem njabootu Baye Cheikh Ndaw nee na sedd na xolu bépp doomu aadama boo xam ne si fayda bi ngay yëngu mu ne ndaxte gis nañ ndax gis nañ cawarte bi mu koy defee muqaddam yi muy àndal di ko def taalibe yi muy àndal di ko def ñaan na loolu yëpp mu ngi leen si gërëm di leen sant di ñaanal yàlla yàlla may leen kàttan ak wér-gu-yaram bu leen mun a permettre ñu di ko def ay at yu bare amin yaa rabbi sëriñ mo ngi gërëm sëriñ Aliou. moy ni ko waxee ñom ñoo fi jitu nee ñom foot lañu joggé jógee de. bu ñëk ba. set place rek lañ doon dugg. jamono nee na jamono gii mooy wax ak ñun. nee na ñetti njëkk njaay la ñuy ñëwee. nee te bu ñuy ñëw fi ñëw fi ñëw si bu njëkk ba. Baye Cheikh Ndaw mu doon dund. Baye Ndaw Baye Cheikh Ndaw na fi. nee na Baye Cheikh Ndaw jógee na fi. buy ji na boromam. nee indi. mu ne firnde la. ne kóllëre bi doxoon seen diggante ak Baye Cheikh Ndaw. kóllëre seen diggante ak Baye Cheikh Ndaw. ñu ngi koy sàmm ba sëkk. nee na ndax bi Baye Cheikh Ndaw génnee àddina. mu ne ñoom dañoo amoon jaaxle. nee seen xalif El Hadj Ndaw. nee leen Baye Ndaw de wax na ko. ci dënnam na ne même boo fi nekkulee dee leen di continuer di ñëw di dal fii ci kër gi mu ne lu tax mu wax loolu mu ne parce que ñii nee na ay ganu Baay Seex Ndaw lañ euh, euh, nee ay ganu Mawlana Cheikh Ibrahim lañ nee na ay eh, ganu. gën ci bindeef. gën ci bindeef lañ. xam ne moom dañuy màggal. mu ne moom xam ne moom la ñuy màggal. gane bi mu gane si àdduna. bi mu si àdduna. muy gàmm mu ne muy gàmm gi. donc ñoom. mu ne donc ñoom. ba léegi. ba léegi. ko waxee rek. fii mooy seen kër mooy seen dalukaay. fii mooy seen kër mooy seen dalukaay. Eh, di gërëm Cheikh Ibrahima Niass. Ibrahima Diop nee na muy gërëm Cheikh Ibrahima Diop. jarbaat. yaroo fii ci kër gi. yaroo kër gi. gis liggéey bi euh, euh, Omar léegi. mu ne mu gis liggéey bi Seydina Omar wax léegi. liggéey bi muy def Ndakaaru. liggéey bi muy def Ndakaaru. bi Cheikh Abdou Aziz di def fii. moom mu koy def Ndakaaru. di yaatal. Euh, mbooloo mi nga xam ne. mbooloo mi am nañ yaakaar. am am am nañ yaakaar. si Baye Cheikh Ndaw mu ne ko sant mu ñoom ñëpp nag mu ngi gërëm seen muqaddam mu ngi gërëm taalibe yi mu ne mu ngi gërëm seen mbokk yi nga xam ne ñëw nañ fekkee si mu ne parce que ñoom tamit wane nañ ne wane nañ ne dëgg la dëgg la mbokk deret lañ mu ne waaye ñoom ñëpp nag ay taalibe lañ mooy te nag ñoom ñoo si jiitu mu ne ñoon ay taalibe Baye Cheikh Ndaw lañ alhamdulilah. moo tax toujours bëgg nañ Cheikh Abdou di xam ne bu ñëwee dëgg mu ne moo tax bëgg nañ chaque jour Cheikh Abdoul Aziz buy ñëw ñu xam ne ñun ñooy ay doomu sëriñam waaye tamit nag ay mbokku taalibeem lañ. fayda bi nag. nee na fayda bi dafa am taarix. am dafa am jamono joo xam ne. arab bu jógee Libi. nee na koy wax Rida. moo fi ñëwoon. moo ñëwoon. Sénégal lawan bislam di jema tasare tasaare lislaam si biir réew mi neena jamono gogo waaye ceddu dal mo fi beuri bëri woon mu ne mu ñew jolof ñewé bi mu ñëwee jolof ñam fa jotta jaayante neena ñam fa jotta jaayantel gis ne kii kat diine ji muy woote. gis ne kii kat diine ji woote. nekk na loo xam ne ñoom yaakaar nañ nekk na ne kat ñoom ñii yaakaar nañ ne dina baax ci ñoom. mu ne moo xam si ñu ko commencé topp. ñu may ko soxna. mu ne ñu may ko soxna. ñu koy wax Jeynaba. mu ne soxna si ñu koy wax Jeynaba. Ñas Jeynaba Ñas. Njaay wante Njaay la sant. mu ne wante nag Njaay la sant. Eh, mu ne waate turandoo Jeynaba boobu moo sant Ñas mu ne ridaa boobu bi mu demee